wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa man tabiahum bi ixsanin ila yawmi ddin asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokku jullit yi fi teew mbokku taalibi yi noo ngi yëkkati ab nuyoo comme ni ko sama kilifa yi waxe léegi muy nuyoo sëriñ Ibrahima Khoudia Mbacke mi nga xam ne mooy xalifab ma Mandoumbe ak nuyoo njabootu mbooleem Cheikh Mandoumbe gi di ko jëmali ci njabootuk maam Cheikh Issa Dienne ñoom ñi nga xam ne ñoo amal bis bu tedd bu màgg bii jagleel ko a Cheikh Ahmadou Ndumbe noo ngi siyaare bu baax sëriñ Abdul Latif Jenn moom mi nga xam ne mooy maam Isaa ci kaw suuf waaye di siyaare njabootuk sëriñ Isaa gépp di siyaare jamciyatu tawdiix lin nashri li injaasaati a Cheikh Isaa Jenn muy jamia bi nga xam ne day leeral wala jamia tawdiix wa nashri li injaazaati Cheikh Issa Diène mbooloo mi nga xam ne dañoo dajaloo ngir leeral ak wisaare ak leeral tisaare liggéeyu maam Cheikh Issa Diène ñoom ñi nga xam ne ñoo amal bis bii ànd ko njabootuk sëriñ Issa gépp jël ko sédd ko njabootuk sëriñ Mandoumbe loolu nañu xam ne njabootuk sëriñ ma ndumbe gi sant nañ leen ci ci delloo njukkal googu ak cër boobu nga xam ne sedd nañ ko Cheikh ma ndumbe akuk njabootam te xam nañ ne li ko waral lépp mooy fàttaliku démb ci ànd bu rafet boo xamante ne nii ñaari jàmbaari sëriñ Tuubaa yu tedd yooyu àndoon nañ ko bokkoon yéene bokkoon pas-pas sëriñ tubaab boole la woon leen ñu amuk déggoo ci lu bari doonoon ay xarit doonoon jàmbaar yu ràññeeku bu mu demee ba sët xam loolu ànd ko xalifa bi na lii nañ ko jël féetale ko Cheikh Ahmadou Ndumbe ak njabootam na ngeen xam ne njabootuk sëriñ ma Ndumbe yëg nañ cër boobu sant nañ ci teraanga jooju jàpp nañ ne teraanga mënu ko gën a kawe ci teraanga jun leen di defal ndax ku mel ne sëriñ Issa ci sëriñ Touba ab bisam ñu jël ko féetale ko ma Mandoumbe loola na ngeen xam ne lu rëy la ci njabootuk sëriñ Mandoumbe gi rawatina thème bii nga xam ne dafa mel ni moom lañu jël def ko mu nekk thème bis bi te mooy alxidmatu inda Cheikh Issa Diène mbokk yi li ñu tudde alxidma ku jël ñaari jàmbaar yii féetale leen ab bis ñoom ñaar ñu séq ko nga def thème bi muy alxidma dañuy xam ne ña tànn loolu def loola deñ nañ ci ak réer ñu am xam-xam lañu waaye ñu xam histoire lañu ñu xam jeexitu ñaari jëmm yu tëdd yi ci kër sëriñ Touba la waaye ñu xam tamit li ñuy tudde dayob xidma ci kër sëriñ Touba ndax lii muy alxidma loo xam ne Serigne Touba dafa dem bay ñaan yàlla mu xiirtal ko ci loolu wa axri wa axrina yaa rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma ak lu bare bare bare lu mu ci wax loolu kon ku jël loola tem bi def ko muy temu bis bi di ñaari jëmm yi séq ko loola dañuy xam ne def nañ lañu ñu war a def tey ña ko tànn tànn nañ loo xamante ne nii lu mat a tànn la loola nag njabootuk sëriñ Mandumbe gi ñu ngi leen ci sant te di leen ci gërëm mu mel ni du ñàkk ay tomb yu neew yu ñuy tënk ci seex ma numbe mi nga xam ne moom lañ dara jaale bés bi moom lañ ko tuddee moom lañ ko féetale waaye jàpp naa ne lañu ci waajaloon yaakaar naa ne duutul jarati ñuy tudd lépp ndax bu ñu seetaanee documentaire bi nga xam ne jàll na ak li nga xam ne mbokk yu baax yi indi nañ ko ci ba ci sëriñ Muudu Xari mi nga xam ne moo mujj jël kàddu damay jàpp ne loolu bu fekkoon ne lu baax dana doy dañuy wax na ne loola doy na sëkk kon xëy na lu ñu ciy tuddal rek ay dolliwaat lay doon ak i gën a leeral waaye jàpp naa ne lañ ci tudd bu doon lu baax day doy doy na sëkk ndax bu dee ci wàll ganek àddunaam leeral nañu ko bu dee ci wàllu askanam digganteem ak Sëriñ Tuubaa te muy lu jara xam leeral nañu ko bu fekkee ne ci wàllum njàngam xëy nañu du ñàkk ñu jël ci tuuti ñu xam ne Seex Ma Ndumbe ginnaaw bi mu ganee àdduna ci dëkk booba ñu wax muy Njaa ci 1859 ñeenti at la fa def daldi dem fu ñu wax Xuru Mbàkke ndax 1859 la gane àdduna 1861 Maba Jaxu Ba woote wooteem ba 1862 ci la ànd ak waajuram dem Poroxaan fekk ci uyu ji woote ba ginnaaw ba diir bu gàtt mu tàmbali am njàngam ci keppaaru waajuram ci diggante bu gàtt mu mokkal alxuraan mokkalin wu rafet xifdan wa tajwidan mokkal ko te man koo tajwid te man koo bind tàmbali am njàngam xam-xamam ci waajuram muy sayar muy Seydou Mati ñu xam ne nag waajuram waaw di Seydou Mati boroom xam-xam la woon bu ràññ ko boo xam ne fu ne nit daana fa jóge di sàkku si ci moom xam-xam moo tax sëñ musaaka di leeral ne ba muy leeral ci téere bu ñu wax mir'aatu ulil absaar def ko ci wolof ba mu agsee ci Seydou Mati mi wayjuru sëñ ma ndumbe dafa wax ne fa amma Seydou Mati doomi sayar soxna busa la wax ne ku amoon diina la woon lool ku ñeme la woon lool waxoon ne ku siiw la woon te ku bari xam-xam la woon ci waajuram woowu nag ci la sëñ Mandoumbe tàmbali njàngam xam-xamam ba sori lool waaye ci 1874 la waajuram génn àdduna mu war a toll ci juróomi at doonoon koo xam ne nii lu baree bari ci xeeti xam-xam yi jàng na ko waaye mel na ne doyalut mu raxa mu laxas dem fekk ji sëriñ Mamor Anta ci patar ci diggante 1875 jàpp 1874 74 75 foofu la nekk toll ci fukki at ak juróom jamono booba nag mu nekkee Pataar laata ñuy dem Mbàkke Kajoor ci 1880 ca la àggale am njàngam mu sori ci sëñ Mamor Anta waaye àggale ko ci jëmm ju rëy ju màgg ja sëriñam bu baax ba sëriñ Tuubaa xaadimu rasuul ca la tàmbali nag xel mépp nekk ci wut yàlla ba am lu mu déyanteeg sëriñ bi ba am lu ko sëriñ bi wax am lu ko sëriñ bi wan ci mbirum baatin mu jël boppam jébbal ko sëriñ bi te booba mel na ne woote ba booba loola siiwagul loola sëriñ Mouhamadul Amin Diop Dagana danañu ko wax ndax dafa wax ne faalam anna arrajula ibn ammi cheikhi wa qarinahu qabla ilmi ahadin bihi xamal ne jëmm jii di Cheikh Mandoumbe doomu baay tëx ci sëriñ bi àndandoom la ku taqoog moom la laata sëriñ bi ñu di ko xam ci baatin laata muy woote nit ñi di ko wuyu si nee ci jamono booba baa nafsahu lillahi wa tajarrada li xidmati cheikhi faridan ci jaay boppam di liggéeyal yàlla di liggéeyal sëriñ bi faridan te wéet ca kaabadal ahwaala waqtaxamal mashaaqa lu ne ci ay tiitaange ci coono ak i jafe-jafe jànkoon na ko ngir sëriñ bi ci noonu ci la nekk ba ne sëriñ bi sañc ñëw Mbàkke Kajoor muy sëriñ Maamoor Anta Sëli teewul muy dox ak sëriñ bi ci doxin woowu ba ni maam sëriñ maam Mor Anta wàcc ab liggéey ba ni sëriñ Touba jiitee dongo yi ba ni sëriñ Touba wootee wooteem bu siiw ba ca 1883 mu bokk ci ñi njëkk a jaayante ànd ak sëriñ bi ci noonu mës dell ginnaaw mës a lekk laxa tekki laxasaayam ba sëriñ bi ñëwee Mbàkke Bawal ba ni mu sañce Daaru Salaam ba ni mu sañce Touba sëriñ bi demee ci géej gi doxin woowu mooy mësu cee deltu ginnaaw xëy na loolu lu bari duñ ci jaaraat ndax mel na ne documentaire bi leeral na ko waaye nii sëriñ bi demee ci géej gi ba ni sëriñ bi ñëwee ci géej gi loolu lépp ay taxawaay la yoo xam ne ni jàpp nañ ne waxtu wi duñu may ñu tudd lépp waaye dana ñu may tuuti rek ñu tudd donte ñaar la walla ñett ci li ñu tudde ahamu amaalihi mooy gën jaa yitte wala boog lenn ci ay liggéeyam te loolu lépp di dugg ci biir xidma waaye danañu may ñu tudd donte ñaari jikkoom yu tedd ya ngir mu doon royuwaay bu ñu mën a yóbbulu fii ba ëllëg bokk na ci taxawaay yooyu mooy jamono bi sëriñ bi demee ci géej gi muy jamono bu doy waar jamono boo xam ne ni ñu bari am nañu jaaxale sëñ Mouhamadul Amin Diop mi nga wax ne xiina taxayara kathirun min annaasi wa xarafal albaadu ñu baree bari jaaxle nañu ngëlëmte jàpp na leen sëñ Madu Ndumbe am taxawaay bu rafet ci njabootuk sëriñ Tubaa gi am taxawaay bu rafet ci yoon wi di dalal nit ñi di leen soññ di leen ñaax ci ñu wëyal liggéey bi comme ni ko cheikh Mouhamadul Bachir leerale dana wasaa fi dalika Ahmadu Ndumbe al muriduhul kabir wax ne di soññ taalibi yi di leen ñaax ci wëyal dox bi ne nag wa taqaddama huwa fi zalika moom ci boppam nag mu nekk ci kanam mbooloo mi di soññee naan acca liggéey bi noonu ci la ko sëriñ Mouhamadul Amin Diop Dagana leerale waaye ci la ko sëriñ Moussa Ka leerale xëy na lu ci bari duñ ko indi waaye ngir waxtu wi kon bokk na ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxawoon na ko ci ginnaaw sëriñ bi murit bu daw moo lay jëli def ndimbalal gaa yi tële ku yoon wi réer baa nga kale mu naa la yoon wi gàtt na bokk na ci xidma taxawaay bi mu ci am mooy jumaay njaareem jii taxawaay bi mu ci am ci wetu xaritam bu baax ba di Seex Isaa Jenn moom mi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa waxoon ne ko liggéey baa ngi noonu yàlla la ci jiital waaye sëñ ma ndumbe toftalu ca sëñ Balla Faali toftalu ca moo tax sañ Moussa ko wax ne sëñ Isaa ko jëwrinu moo di saadix wa cheikhu mudu ndumbe dolle ca Balla Faali mu am ca taxawaay comme ni ko mbokk yi waxe jumaa ja ngir bañuy sasoo téeméeri junni la sasoo te mus la yàq lam fasoo ku weddi laajal sëriñ Isaa xanaa kon taxawaay bii la amoon ci jumaay njaareem waaye jumaay Tuubaa taxawaay bu mel nii la ci amoon te lépp di dugg ci xidma wax nañu ne keroog ba ñuy liggéey jumaay Tuubaa ngir ab taxawaayam akuk soññeem ci liggéey bi sëñ Mouhamadul Amin Diop Dagana nee na mi ngi nettali ne jamono bi ñu nekkee ba teg xeer wi ba mbooloo mi am mbégte mu rëy ñi tagg taggi wolof di tagg ñi way wayi arab di way nee na ci loolu rek is aqbala cheikhu ahmadu ndumbe wa aqbalu nnaasu alayhi yuhanniunahu nee na sëñ Mandumbe dëgmal si mbooleem ña fa nekkoon ñëpp wëlbati ko jàkkaarloog moom yuhanniuunahu bi xusni xiyaamihi maa cheikh di ko ndokkeel ci taxawaayam bu rafet ci sëriñ bi ak ci njaboot gi taxawaayam bu rafet ci jumaa ji ba ñu demee ba guddal mu ne leen maa ngi sant yàlla waaye di leen sant ngir ne dama jàpp ne liggéey bii man rekk la war ku ci ñëw di ci jàpp rek da ngay jàpp ne man rek nga dimbal waaye man rekk la war kon loolu tamit taxawaay la boo xam ne nii amoon na ko ci kanamu sëriñ bi waaye amoon na ko tamit ci ginnaawu sëriñ bi bokk na ci liggéey yooyu ak taxawaay yooyu muy addiye ju mu ñeme woon lool ak taxawaay bu mu amoon ci doomu aadama yi nga xam ne daanañ am yaakaar di ñëw ci moom muy taxaw taxawaayu rafet ci ñoom doonoon ku tabe doonoon ku yaatu ab dënn doonoon ku mën a dimbale doonoon koo xam li ñu tudd xidma jaral na ko lu ne kon loolu lenn la ci ay jëfam nañ ma baal ma tudd ñaari jikkoom yoo xam ne ràññi woon na ci lool te toll nañ ci jamono joo xam ne ni jamono yitteel na ko lool wala soxla na ko bokk na ci jikko yooyu li ñu tudde as sidqu te mooy dëggal moom la alquran di wax ne li yajziya allahu saadiqina bi siddiqihim kon li ngi may signaler ne xëy na waxtu wi li ci des bariwut waaye nañ xam ne ku amoonug dëggal la ba sëriñ tubaab moo ko ko seedeel daal ne ahmadu numbe murid saadiq la moo tax sëñ Moussa Ka ne ko yaa yor ngëmug baabakara boole ca dëgguk amba xaydara wala yaa yor ngëmug baabakara boole ca dëgguk omara booleeg njàmbaaruk xaydara sa fit wu réew wi làndi na kon murit saadiq la woon ku dëggaloon la xëy na lañ ci war a leeral ci jikko boobu ak ni ko jamono yittewoo jàpp naa ne xëy na waxtu wi duñu ci bàyyi ak leneen lañ ci war a teg kon damay jéggalu ngir xataayu waxtu wi di jéggalu mbokk yi nga xamante ne ni xëy na kàddu gi teg nañ ko ci sama loxo ak mbokk yi nga xamante ne nii tamit doon nañ ko dégg ñu xam ne lépp lu ci manqué nañu xam ne ki jàkkaarloog yéen di wax la waaye ca sëriñ ba kàddu yu mat sëkk la kàddu yoo xamante ni yu leer la yu jot la ñu ngi sant njabootu maam Cheikh Issa gi di leen gërëm di leen jottali nuyoog sëriñ bi ak njabootu Cheikh Ahmadou Mbé gépp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ngir jot sunu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube Production bi bokk ci programme bi national international